Ahmadu Bamba alillah sëriñ Masamba ni sanga baraya saadi lisaane sëriñ amaana rafu baraya saadi lisaane yaa jara daylo Seex Ahmadu Bamba magi man jonna faaj di sanga baraya saadi lisaane

تنقل ذنبا فبسر المزا فبزنبا مرايا سعصة بايرا للختمايرا فعندك في جوران مردرايا سعصة بايرا للختمايرا لختمايرا لمن يرى الله يفلوبا سعصة بايرا

sopp Seex Saaliw Mbàkke day misal la bi du mal qalib daraaya ini idaba khundul kitaba ilayna waqbal mataba daraaya ini idaba ya jara doylu Seex Mamadu Bamba Mbàkke borom di baax na daraaya ini idaba وسلم قداما وقنا المداما وسلسلا إنابا خلل توتنا مجلس دمنا يا خير ربي خير المربي لا لا لا يا خير ربي ربي خير المربي ربي دايم قلبي بالابتداء بعد ابتداء سدي وسلم على المتم وكل سلي وسلم سلي وسلم المدمر على المدمر وكل عالم مدى الخبير القدور ألا يدور من النوار أنا الخبير الكبير والكبير ما لا يدور من النوار أنا النرابي مهد الإله زمان هذا القدور بلا جدال ساليك وإليك انظر لما يراك بالدماء صلاة عليك إلى مما لديك يا جدال إمام البرايا إمام البرايا

bamba ca tey ba daan di dangaa law dëgg ci jaam ji man maa ngi sant man ne man ni ma anda ca tey ba daan le ñooñu dëgg dëgg nam faati nay nay man ni ma anda alhamdulillah na sant yàlla yàlla war na sant sëriñ yàlla war na sant Assane Bamba. sakasee ay sa boppam te xamuñu la. alhamdulilah ñu sant yàlla. sant yàlla sant Baye Sarr te xamuñu la. alhamdulilah. alhamdulilah. sant yàlla yàlla sant Baye Sarr la xol moom. ma sampal si saari naa sant Baye sant la caat. alhamdulilah sant yàlla sant yàlla sant Baye Sarr alhamdulilah. sampal Serigne Saliou Mbacké sampal Serigne Béthio lillah alhamdulillah ñu sant yàlla sant yàlla sant baay saal alhamdulillah alhamdulillah sampal Serigne Amar Samb waaw borom jàmm samb lillah alhamdulillah

ذو زكوري إلى زكوري ألا زكور سر زنانية أيوة زكور إلى زكور ألا زكور سر زنانية زكوري إلى زكور ألا زكور سر زنانية زكور ila zukuri ila zukuri ku Serigne Bamba sa loxo ca kaw yendu zukuri ila zukuri ala yawure arzana ila zukuri ila zukuri ala zukuri Serigne Khadim Nour Bara lam yakun qalbi دائما أو دائما أو دائما daa aw daa aw daa aw sopp sëriñ sa def ña nga ka baax lam yan nu xal bi daa indi xal bi aw daa ilal bi aw daa ida publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàpp leen ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication da ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen gaaw si 77 325 68 20 xarañ liggéey bu tegu si temps am taalibe gaaw efficace contactel Khadim jaay da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc